ñu xaatimoon gannaaw ba ñu noppee si la lii doon am fi si réewu Sénégal si atum 2014 ñu jagleeloon ko wala njàng mekk njàngale mi la ñu càmbaraat si bile ndaje commission administrative bu sayam si doon amal Sénégal dugg si ñetteelu alternance politique am enseignant yi gis ni yoon la ñu jébbal kilifa yi ñu tabb bu yàggul digle yi nga xam ne moo tukkee woon si la jotaay ñu sekkoon kàkk nguur gi génn te sàkku teefe moo nekkoon fexe rek ba andi ay safara si jafe-jafe yi école bu réewu Sénégal di jànkonteel. tey boo jëlee li nga xam ne mooy déggoo yi ñu xaati moo na nguur gi am na ci déggoo yu bari yoo xam ne nii tey mën nga wax ne nguur gi fasu si xànc ak morom ma ñu jàpp nag ne ci yooyu yi ci gën a fës bokk na ci lu jëm ci wàllu waay xarale yi ñu war a indi ngir mën a gën a ñoŋal maanaam lijjanti carrière yu jàngalekat bi ñu xool ne ba léegi amul nga dolli ci tamit situation wu décisionnaire yi taga témbee kooku poñ la bu nga xam ne nguur gi fi jóge moo ko fi bàyyi te ñu jàpp ne nguur gi ñëw moom am na obligation indi ci saafara si am yaakaar bu rëy si nguur gu yees gi le El Hadji ak i natangoom ne nañ gis nañ seen bopp bu baax a baax ci li nga xam ne moom la jiitu réew mekk ñi mu àndal di woote mu di tëggaat fonction publique jaarale lépp ci yoon nguur gi def ñu fekk ñun si si li nga xam ne moom la ñu ñëpp xamee mooy ñun mënuñu nangu fonction publique boo xam ne bii maanaam dafa am ay fléau muy li nga xam ne jàpp nañ ne lu koy teree dox la jëm ci wàllu ak ger jëm ci wàllu maanaam nit ñi duñu euh, maanaam def seen liggéey ba pare rendre conte suñu syndicat mësul nangu lu mel noonu. SAEMS sax bind nañu ab téere bu ñu duppee PATEF di pacte pour la transformation de l'éducation et de la formation. téere boo xam ne ni taxij nañ sa lépp luy tolof tolof bu école sénégalaise di jànkonteel ñambaas nañ sa li ñu jàpp ni buñ ko jëmmaale daana saafara yooyu la jafe-jafe